dalati leen jàmm mbokki internet BP Actu yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te fas yéene jàll ak yéen ci seen émission analyse comme d'habitude lekk niñ ciy faral di ñëwee ak yenn waaye tey kii nii di Mohamed Mbougar Sarr gañe woon prix Goncourt prix boo xamante ni am na doole lool ci réew mi ndax jot na félicitation euh, bu bu félicitation yu baree baree baree bari rawatina ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di blanc yi même presse française bi tamit jugoon na rien que pour am ak mu jox leen plus de détails ci livre bi waral succès bi nga xamante ni am na ko jamono ji euh, yàggul dara euh, ci ñaari fan lay toll ginnaaw ba ñu waxee kan moo di Mohamed Mougar Sarr Mohamed Mougar Sarr nekk ab jeune boo xamante ni dafa mës a passionné wu ci littérature mu nekk ci famille boo xamante ni ay frère ay sœur am ñëpp euh, presque ay intellectuel lañu macha allah waaye ñoom ñëpp dañoo mës a fort ci wàllum littérature donte sax way juróom bu góor médecin la woon yaakaaroon na ni kenn ci doomam mujjee jël tànkam yi rawatina Mouhamed waaye Mouhamed depuis que mu dugg euh, France ba suñu joon yàlla tey jii Euh, mbëggeelam euh, ci wàllum littérature dafa gën a yokk ci la euh, tàmbalee bind ay livre ci atum 2014 bind na fi nag pas mal de livre buñ ko saytoo mu toll ci ay trois jàpp quatre livre bi nga xamante ni moom moo waral mu am succès bi nu mel jamono ji bokk na ci livre bi mu bi mu duppee secret mémoire des hommes ab livre boo xamante ni ñenn ci sénégalais yi ñu xamaguñu lan moo nekk ci biir livre bi mais en tout cas looloo waral mu daal di ah, gagné prix Goncourt bi eh, boobaak léegi jot na félicitation yu bari bari ci côté sénégalais yi ak képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci bitim réew ndax jàpp nañ ni nit ku ñuul bu demee ca diwaanu Europe ba gagné fa prix rek dafa nekk fierté ah, ci suñu réew fierté ci li nga xamante ni moom moo di suñu drapeau eh, président Macky Sall amal defal na ko ay félicitations ah, teg ci tamit applaudir na ko bu baax ci li nga xamante ni moom la fi indi ci réewum Sénégal way juróom bu góor jàpp na ni tamit mën na romb fu ko raw sax sax ndax littérature ak euh, Mougar dafa nekk histoire boo xamante ni yàgg na lool bu ñu duggee ci li nga xamante ni moom moo di livre bi livre bi waral mu daal di koy gagné. lan moo ci nekk moom auteur bi en personne joxe na ci quelques explications explication bi mooy wàllum góor jigéen bi mu évoqué ci biir livre bi livre bi nag mi ngi ciy yëgle ni homosexualité bu dikkee Sénégal c'est pas occidentaux yi ñoo ko fi indi mais nekk na loo xamante ni yàggoon na fi lool daan nañu gis ñenn ci góor ñi doon nekk ci xew yi doon togg di yàq wala ñuy taasu nit ñi ji reetaan wala sax bu quinze heures jotee boo añee ba pare ngay gis koo xamante ni dafa xaw a mel ni góor jigéen dugg sa biir kër di waxtaan ak yow di tàccu di kaf di reetaan mu nekkoon ambiance boo xamante ni amoon na ci société bi ak góor ñi nga xamante ni dañoo xaw a nduru homosexuel am na sax ci ay période yoo xamante ni mu koy évoqué ci réewum Sénégal góor jigéen ñi dañ daan dox ci mbedd yi te kenn daawu leen wax dara ndax booba euh, société bi garaawulagul woon li nga xamante ni moom moo di act góor jigéen ñenn ci jigéen ñi ñoo leen daan jataayal ñuy wax ñuy reetaan ba mbir mi law jëm kaw mais société bi dem na ba toll foo xamante ni euh, lii nii di homosexualité sénégalais da ko criminaliser ndax wàllum diine diine tey ji mooy bañ euh, mbirum homosexualité ci réew mi diine tey ji mooy bañ yenn ci euh, cours yi sax ñu koy jàngal élèves yi ba ci école yi gis na tamit li nga xamante ni moom moo di programme scolaire yi dañoo bàyyi xel trop wàllum diine ba tax na lu ñuy wax jëmmale ko ci wàllum homosexualité dañ koy yemale donc mënul concevoir que ni occidentaux yi ñoo fi indi wàllum homosexuel alors que homosexualité yàgg na fi euh, depuis suñu temps wu maam yi góor ñi daan taasu góor ñi daan reetaan loo nit ñi te booba daf ñoo neexoon lool en même temps doo leen mën a jéppi ndax da nga daan am euh, stress te ñoom ñoo la ko daan teggil évoqué na ci lu bari nag nee na bientôt livre bi dina disponible au Sénégal ñenn ñi buñ ko liiree dinañu comprendre li nga xamante ni moom moo di contexte bi ak fan la ko jëlee ba daal di koy bind ñeneen ñi tamit buñ ko liiree dinañ ko pointer du doigt ndax euh, dañuy jàpp ni moom day def promotion homosexualité alors que li nga xamante ni moom la bëggoon a expliquer mooy ban temps la góor jigéen commencé woon nekk ci réewum Sénégal ba suñu joon yàlla tey jii li ko gën a marqué mu bind livre bi bokk na ci ba muy def classe de terminale benn vidéo bu doon circuler vidéo boo xamante ne góor jigéen bi dañ koo suuloon ñu daal di koy suuli tout simplement parce que góor jigéen la famem tamit toog nekk ci ay jafe-jafe lool nee na tamit dugg na ci li nga xamante ni moom moo di famille wu homosexuel yi nekk ci Sénégal ci yenn famille la faral di bokk en général famille yoo xamante ni dañoo am diine am lislaam famille yoo xamante ne ñoom ñëpp a baax famille yoo xamante ne kenn xamu leen ci dara ñu jékki-jékki am doom boo xamante ne góor jigéen lay doon dem nañu sax ba suñu wayjur yu jigéen ñi nelawatuñu bu ñu gisee góor jigéen buy làkkatu ci beneen catégorie ndax d'après lui trois types de góor jigéen moo am Sénégal am na ci boo xamante ne ci xew yi lay nekk di reetaan ñi am na ci yoo xamante ne dañuy kasewu am na yoo xamante ni tamit nag bu ñu deewee rek lañ leen di xam ñu ci bari nag looloo waral seen way juri jigéen ñi seen xel dalatul buñ leen di gis ñuy ànd ak yenn ñig yi nga xamante ni euh, dañoo am air efféminé loolu ci la ñëw waaye ma maxtar Gueye ak waa Jamra nee nañu laataa ñuy amal yenn applaudissement di ko jëmale ci Mohamed Mogar Sarr il faut ñu lire li nga xamante ni moom moo di livre bi tàmbale ko ci titre bi ba ci fin bi ndax loolu moom mooy seen droit bu ñu liiree livre bi ba xam livre bi lan lay wax ba xam propagande góor jigéen lay def wala ba xam tamit livre bi day dénoncer ay taar wala livre bi dafa wax exactement li nga xamante ni moom moo xew ci société bi dans ce cas dinañ ci mën a prononcer wu en tout cas délai bu néew la jox rendez-vous ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi rien que pour mu lire livre bi bu dikkaatee dinañ mën a prononcé wu ci mu Mouhamed Mbougar Sarr livre bi nga xamante ni moom moo ko may succès bi ak lan moo nekk ci ginnaaw livre bi mbokk yi fi la ñuy yem ak yéen jox leen dig daje ci beneen émission analyse incha allah rabbi